mën nga mën nga mais woo attaqué nit ki ñamu ci tudd ñëpp dañuy liggéey ci biir système kon système la ñu war a attaqué ne lii duma ci tontu parce que enquête dëgg la am na ay journaliste d'investigation mais wax fa dëgg neex yàlla day investigation boobu egsiwul ci biir ministère bi Pape Sagna Mbaye moo doon tontu noonu ne ci téereb Cheikh Yérim Seck ba mu jàpp ni maîtrise wu secteur am daanaka daf leen xaw a xaw futti daal wu pël moom ku weddi wete concerné ci téere ba waaw Mansour loolu moom yàgg nañ ko yàgg wax parce que en géej gi Euh, dafa doon ay euh, dafa am yoo xam ne ne dañ ay contrat ak yeneen dëkk yoo xam ne ne dañuy indi seen i bateau colporté wu ñëw bés ñëw napp fa yóbbu seen i jën am na sax ay lu nga doon xam ne ay bateau usine dañ ko doon gis soo demee comme par exemple ci géej waaxu euh, Geneska soo demee ay booru côté yooyu di nga gis ne que la plupart ay bateau yoo xam ne ne bateau étranger yi ñoom ñooy ñëw foofu mhm. si waax yi jël ci jën ba pare parce que ay bateau usine lañu bon loolu yëpp tey tey day mel nii beneen problème boo xam ne ne moo dikkaat problème bi dikk mooy réellement peut-être que euh, Cheikh Yérim am na ci dëgg parce que bu njëkk ba noonu la doon mu ñu ndax ba tey nag léegi am na ay tànk yoo xam ne ni tànk kanam yoo xam ne ni jéem a assainir le secteur de la pêche parce que bu njëkk ba ça a posé beaucoup de problèmes gisee tey jii Sénégal dem nañu ba nga xam ne ne presque pour am géej pour am jën doon c'est parce que tout simplement dañoo munul Euh, maanaam surveiller suñu dañoo signé woon ay contrat yu bari ak ay bateau usine loolu moo ñu yóbbee peut-être. Mhm. Euh, tontu Pape Sagna Mbaye ci téeréb Cheikh Yérim Seck bi. waaw euh, li nga xam ni moom la ministre bi andi moom mi nga xam ne moom moo yor tër bi Cheikh Yérim Seck dut baaraam ci livre bi nga xam ni génn ci doon xaar mooy point par point. ci ponk yi nga xamante ne bu Cheikh Yérim Seck yëkkati nga naan liir moo fa am mm-hmm. moom nee am waaye en réalité c'est la la la la la la vraie euh, la vérité. Mhm. loolu lañu ñu doon xaar ci ci ci tontu euh, ministre bi euh, mais ngañ la la démarche scientifique de de de de l'enquête enquête bi am na fu mu sooxee ndax ay acteurs yoo xamante ne ni ner bi ñoom la jël ay nit yoo xam ne xamuñu dara ci secteur bi te bokk na ci yenn poñ yoo xam ne mës na ci livram boobu mooy la naturalisation des bateaux chinois loolu première fois ñu koy dégg Mhm. dégg nañu ay acteur de la pêche euh, artisanale nee ni ñoom euh, ci jamonoy Alioune Ndoye yàgg nañu laaj neen leen liste ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu jox ay licence de pêche laaj yàgg nañu génne bateau yoo xamante ne ni ay bateau chinois lañu te ñu bàyyi leen ñuy euh, daal am turu ay tur yoo xamante ne ni ay Sangomar lay doon wala Albouly Ndiaye beneen tur ak beneen tur alors que en réalité euh, équipage ba ki nga xamante ne ni bato bi euh, bitim réew la nekk donc loolu yëpp nekk na loo xam ne ay jooytu yool bi yàgg nañ ko joytu euh, même ay rapport yu Greenpeace ne ONG di mhm. di yàgg di génn ci li jëm euh, ci napp bi fii ci Sénégal mhm. ak ci yeneen ci ay dëkk yu nekk ci Afrique yàgg nañ di duut mbaaraam euh, ci yooyu nga xamante ni ne lëf loo xam ni Cheikh Yérim Seck génne na ko ci livre bi et jamais on a eu une réponse convaincante plutôt de la tutelle mhm. réponse bu bu bu neex dugal ci nopp bañ a ci wàllu politique Evelyne Mandiouba mooy lu leer ñu wax ci leneen di bu ñu continuer grève transport gi am na ci ñu mu metti naam waaye am na ci ñoo xam ne ñu ngi ciy teg ndawal seen affaire ci Bakar Fego war gaynde yi kalandoo yi ak karapit yi gréewul nu leen neex ko reportage Cheikh Ahmed Tidiane Diallo gréewu ñenn ci transporté na bu baax a baax car rapide yi war gaynde yi ndax client yu bëri léegi oto yondikoo ngir voyage njaga njaay ñu ngi liggéey xool leen ñu ngi dox taxi yaa ngi liggéey wax sama mbokk chauffeur yi ak coxeur yi bu ñu wootee grève na si ñëpp ba ñëpp xam na ni impact bi laal na ñëpp boo xoolee tey tata bi mi ngi nii di liggéey taxi baa ngi liggéey ñun ay kalandoo la ñu duñ toog tamit il faut ñu lu ñuy dépenser suñu kër. mais mënuñu toog suñu kër yi di xoole ah kan moo ñuy fay ñooy fay suñu bopp kon donc am na yenn yank génn ñu ci biti mënuñu ko am donte amul dara mais il faut ñu génn xool li ñu yóbbul njaboot ji. waa moom ñu ngi doon ñu ngi naan ñooy mais ñu si bëri tamit quoi parce que xalaat ne xam nga sécurité du am mais vraiment fii moom dara amu fi loo xam ne quoi. lu ëpp ci chauffeur yi nag ànduñu ci grève bi ba tax na ñu ngi woo ak porteur yi ak état bi nañu toog waxtaan. gouvernement bi daf na erreur tamit parce que bu amee njàkkare bu amee si réew mi balaa moo jël engagement day woo. boobu. waxtaan ak ñoom ba ñu trouvé solution mais gouvernement mënul xëy ne jël ay sanctions ci kaw chauffeur yi que ku xam Sénégal mbokk na luy dundal réew mi. Cheikh Tidiane Diallo ci wàllu reportage waa ASCOSEN nag di association des consommateurs du Sénégal moom la ñu chauffeur ndax am na ci ñoo xam ne nañu dañuy menacer seen yi grève te loola jaaduwul ba tax ñu dénoncé ko interpellé kilifa yi tam ci vice président bu ASCOSEN Momad Cissé chauffeur su bëri nga xam ne dañuy ci biir réew di jóge ci gare routière di dem ci beneen gare routière woo nañ ma nem bi ñu am bëgg nañoo liggéey waaye syndicaliste yi nekk grève te ñooy gérer gare routière yi dañ fekkee ne liggéey nañ dañ leen suspendre ba dootuñ rangati ci gare wax syndicaliste yooyu nag ne nekkuñ ci yoon mën nañ dem grève naam yoon may na leen waaye képp ku bëgg liggéey na liggéey dama fàttali leen gare routière bi du privé gare routière publique la ñëpp a wax na sanctionné ñooñu ba nga xam ne kenn dootu ko xalaate ndaxte ku bëgg liggéey jël passager si gare routière bi yóbbu leen ci beneen gare routière te bu ci am benn pression gréval itam dafa war a liggéey te loolu autorité bi moo ko war a garanti lool moo tax ñu wax ne ne autorité bi na jog ci loolu naka kàddu mi di wax moom Momar Cissé rek Abdou Karim Seck bokk ci syndicat yi grève ni aussi amu ci gisoo benn chauffeur bu xëpp baneen wala ku tiital keneen wala keneen mu liggéey ñu dégg kàddu yi Abdou Karim Seck dem liggéey pat bañ arrêté parce que gisuñu lu ñu liggéey de ce amuñu sax client bu fekkoon bëgg nga dem sax doo mën dem liggéey surtout c'est à cent pour cent arrêté l' activité d'arrêté loo yokk paas boo yokk problème waroo yokk paas ñun dañu bëgg harmoniser tarif yu bees ak état ñu toog waxtaan légal lu lew c'est tout bon maintenant taxaw di wax naan nit ñi dañ leen di forcer vraiment amul ñoom consumériste yi dañ ñoo jàppale ci loolu pour le moment ça se déroule très bien tabarakal aw na yoon ndax euh, booy xool ci dëkk yi gaar yi ci biir dëkk bi interurbain diggante dëkk ba dëkk ñoom boobu léegi kenn liggéey biir Dakar nag am nañu liggéey c'est visible mais aussi bari nañu toog ñoo xam ne ci aftu mu ci taxi yi aftu bari na ñoo xam ne dara toog ko on force personne ne peut pas daa mel ni nag Evelyne euh, kàddu euh, Momar Cissé dëgg yu Abdou Karim Seck yi ndax euh, xibaar am na juróom benn chauffeur yoo xam ne ca Kaffrine leen bu duggalee ba defeere leen sax na sabab bi mooy dañu doon jéem a yàq seen oto yi bokkul ci grève bi bëgg a liggéey. preuve la. bu ñuy bu ñuy laam-laame dëgg la am du dëgg ñu naan la ni am na juróom benn chauffeur yoo xam ni jàpp nañ leen Kaffrine mu sax lañ leen defere woon ñu am retour de parquet tey ñu delloowaat leen fi nga xam ne moom mooy tribunal bu Kaolack soo moytul sax waxtu bi ñuy wax ak bi ñuy wax ni mën nañu jàkkaarloo la ñu amaat beneen retour de de de parquet te du foofu kese la ñu déggoon bi grève ni am nañu doon jéema amal ay pexe euh, ngir euh, mën a capoter mais heureusement qu'il y a eu une forte mobilisation des force de l'ordre parce que dañ leen ci seetlu ndax moom la ñuy yàgg seetlu euh, Mansour mhm. saa yu amee grève di nga gis ci ñeent yoo xam ne dañuy dogaale ay oto di toj gis nga ni waa Dakar dem dik artu nañu la tàmbali ne na force de l'ordre yi encadrer seeni bus encadrer usagers yi ba nga xam ne li doon amate donc quelque part mën nañu wax ni c'est la forte présence des des des forces de l'ordre mu yaade donte sax am na ñenn ñoo xam ne jot nañ leen a teg loxo te seen moroom ñu ngi naan ñu ngi exiger ñu génne leen waa ilaa loolu yokkaat nañu ko ci seen i point de sinon dañuy wéyal seen grève